yow mii di seetaan dalal ak jàmm ci chaîne bi di Tivaouane Tawfekh bul fàtte abonné ci chaîne bi di Tivaouane Tawfekh aimé vidéo bi commentaire ngir nga jàpp ci liggéeyu chaîne bi di Tivaouane Tawfekh nga xam ni Tawfekh rek la leen di jox yow mi nga xam ni da nga am programme wala lu mu mënti doon wala marchandise te bëgg koo siiwal mën nga jokkoo ak chaîne bi di Tivaouane Tawfekh ci numéro yi mën nga ñu fekk ci TikTok Facebook Instagram ba ci sax YouTube. maa ni Tawfekh rek ngeen di dégg ci lépp lu jëm ci seen wàllu wérgu yaram ndax suñu produit Tawfekh yi nga xamante ni ay produit bio naturel la yoo xam gàncax yi nekk

ndoxum City. Kep ko xamante ni jàngoroy ndoxum siti daf la sonal japp len ni di ci am taw ndax jeexna tak ak taw féexu ndoxum siti taw féexu bi kep ko am ballonnement wala nga am hémorroïde externe wala interne japp len ni jeexna na jàngoroy hémorroïde sonal ñu bëri taw féexu mom da daa dëkk jële fi lepp. am nañu produit bo xamante ni moo leen soxal bu seen yaram di diis du ngeen man dara yaram bi diis gann ngeen di tayel ba japp ni sax dañu len liggéey fekk na yaram bu diis tong la jàpp leen na suñu produit yii bu ngeen ko jëlee di nga oyof tol gaaw leen gaaw jokkoo ak ñun ci 77 593 19 11 wala 77 245 36 39 kon dina Omar Kayre ngoog borom produit yu baax yi Seydina Omar Kayre mi ñu andil tawfiix ma ne tawféexu néegu sëy bii gaaw leen wuti ko te xam ne sonal na ñu bëri waaye tawfiix rek. am na benn garab tawfiixu sëy tawfiixu sëy man xam naa ko man xam naa tawféexu sëy utiliser naa ko. xam naa ni garab bu baax la ci ñi nga xamante ni dañoo am impuissance sexuelle ku ko bëgg na nga dem seeti Tivaouane 24 mu jox la ko mu ngi fii ci Tivaouane mu yor ko ñi am 60 ans 70 ans te yor ay jabari xale dem leen geen seeti Tivaouane 24 mu dimbali leen. béy mu taxaw nit du fi jóge te xamul ko moom béy ma yem ca ma ko sëñ bi lu muy taxaw nii mu ñëw béy wi mu tël béy wee dee te du fi jóge te xamul borom béy wi ndax da koo bëgg jox lopp béy wi ma ne ko yaar sama maama nu ko rafaatale war na xalifa ak dayira sëñ Babacar roxee njaayaali booy mi ko sàmbay naar mu ànd ak moom te Habib moo ma woon sëñ Mansour moom laa ñëw ni ko damaa bëgg gis sa papa ma jël dàll yi ànd ak moom ba ñu dugg nekk ma sëñ Mansour seen ni laa peex ma ne am say dàll mun a mun ma waxaat moo sëñ Abib ma woon sëñ Mansour moom laa ñëw ni ko sa bàyyi daal dégg naa daf maa sopp mun ma dalay waxtaane ñëw nu dem ma ngàbb daal di Mansour daal di Abib téye nii daal di njëkk ñu dugg rek sëñ Mansour seen ma ni eh peex ñëwoon man sëñ Abib am say dàll mun ma lii mën ko yéesi kii laa doon wër téye say dàll rek mu ma jox ko daal yi te ma mos ko ci wetam mu génne ñaari ay sotti maa nga yére sëñ Mansour peex teg ni ma tànnal ñaari assiette bu la gënoon ma tànn benn mun ma am nga taw peex barki dem ci burdu sëñ Babacar ci xabru bi mu mi laa soo toog ma nga peex beneen bi ma ñëw mu génne mbubu maa xari jóob député euh, ministre nii mbu mi laa lay jox tey dinaa ci teg million maa ngi juróom benn fukki junni ni kees gouverneur kees bi ni ko fukki junni nga moo ne sa poos dox ma ko gouverneur bi fukki junni ni ma fukki junni yi rek laa mu ni jóob si da ngaa fàtte sa xaalis ca kër ga baal ma lebal ba xaalis bi ma léeg-léeg ñëw doy mu ma day mat ba million bi mat ba million bi mu boole ko mu mu jox ma kii kii nii wallaay loolu te réew mi euh, euh, maama ma mel ni sëñ Bamba ak alaaji Malick Koumba Thiam Fawade Ferme Diop boo demee Touba Cheikh Moustapha ak sëñ Baara Aminata loo mën a jur Aminata xëri maam ak yaaba xëri maam ak aala xëri maam ak mbay métti ku mu boof Aminata xëri maam ku mu jur wàllu yu nga yaaba xëri maam ku mu jur buur nga ndaam looyeen dinaa moo la fa la taali daan muy takki. mais xam nga sëñ Mansour mën a def loolu. boo déggee ñu ni Seck Ndiaye Atoumane ma Ndiaye Ngone Abou Demba Baye Naar sëñ Mansour tax astu Seck Faat Seck bokk ndey ak Baye Demba Seck leen jur Faat Seck jur sëñ Mansour astu Seck jur ma jama kere bi Amari Ngoone la Kumba Jaari maa ngi passé Diop mii toog di xeex seen jëli Ngoone Mbeng ànd ak juróom kawar jëli Ngoone bi jëm tubaab jalaaw sendu tëngéej barñi ngaraaf njagalak pooleeg barñi ngudd yoof wakaam ngor keroog la ñu rey Demba Seck mu jur astu Seck mu jur sëñ Mansour mii di benn bàcc ñu ngi ko rey diggante bi jëm tubaab jalaaw boo déggee gisuma la mbaaw sëñ mën a ko moom maamam Babacar Si dikkee Tëngéej te amagu fa makkaan bu sëñ Babacar Massa toog ak kuréel yi boobu mu jël Amadou Makhtar Mbow bu sëñ bu bu Demba Sekk day ñëw sëñ Babacar day wax defar leen toogaay yi ñaar lay indi ñu ne ko ban ak ban mu ni xaalis ak xam-xam bi ñu sottee daayiratul kiraam sànc seen ak kuréel yi mbow ñoo ko sos ci Tëngéej jël ku ñuy wax rakki Alaaji Basiru Jaaj papay Ndey Sali Diop Mbay Diop Sali moo doon seen trésorier ak bàyyi Paate Njaay boo gisee sëriñ Serigne Mansour di benn bàjjo bi muy dem armée sëñ Babacar da koo bëggan da doon gars yi damaa bëggan ngeen wër ngeen wéer àlluwa yi nekk saa waa ji ba mu ñëw mu ne ko bàyyi leen ñu jàng su ma dikkee maay maay doon borom daal mu dem arme bàyyi kay jang bi mu delu ci dara indi won ci jaaj malik tion motax ñu ko borom daara ji fii ba Makkatal mu karam bo bindé leetal ci tarixa keur Cheikh ne borom daara ji sëñ Mansour sëñ Babacar Si musa xam du bok kum xamul de jënd deel leen ko ñoo xam ne ñoom nga deel daara daara daara Habib nag daara dara ca dara dara bàyyi mbokki dara Habib nag ñoom nga deel Habib dama tegee li ko dal ndeyam day bàjjanam moom Habib Moussa Mansour waaw li mu ak kër sëñ Babacar bu kenn bokku kook ñoom di kenn nag ci Pape Matar Lo Habib 1989 laa dikk taawun guddi yor ñetti paquet maal borom ak àll ànd ak Pape Ndiaye ba dóogi ñetti paquet maal bor laa yor keneen ma ñëw ci sëñ su mi samay daal li jël paquet maal bor yi roof ko ci ànd ak ma dóogi ma dooki Balla Ndiaye bi ko jur ma dookee ko jur moo ci ko tabaxi armel ci Thiès moo doon greffier en chef nu ànd ñoom ci sëriñ bi booba dem naa ba amatuma loo fee luyaas te daanaa toj million di ko lekk nu ànd ñoom ci moom fekk ci néeg mu toog ñoo tudd ma ne xaadim sàmm mu ne maam xaadim daal di ma yóot yóor ma daal di yóor du ma dooki ne ko yow maay sa baay maay sa maay sa maay lu ngeen di dox ma ne ko man day si ba fii may wax ak yow amatuma lu ma fayee luwaas bi dañ maa bëgg kër bu yëg fa laa dëkk ci Ndakaaru pantalon bii ma yor ak simis bi rek laa dese ci àddi barke mu mu duru suuf mu ni ma loo bëgg ma ne ko gudd fan ba pare bari xaalis mu ni ma dooki loo bëgg ma dooki ni ko man griffier bu ndaw laa njaareem nañ maa fekk maa ngi son premier poste mooy njaareem damaa bëgg ñu ni ma Thiès gi ma dëkk ba ma retraité bu ma fa jóg mu daal di abib uba bi tu tànk la ànd la ñoom yóbbu leen ci sa maam alaaji Malick soo fa jógee dem sama kër tur yóbbu leen sama turandoo soo fa jógee ñëw ci sëñ Babacar boobu sëñ Babacar feewlu bi melul ni ay seen nga fa nekk ñu taal cuuraay bi ak wërale ko perkaal bu weex nu ànd ñëw ci sëñ alaaji Malick jógee fa ñëw ci sëñ Mansour ànd ak abib minuit dikk ci sëñ Babacar si